ñu daal di du ci xibaar yi lee da xew démb foofee ca Ngor mu metti loolu tax na journaliste bi di na Seck daal di ci yëyyaat bi di wax ni moom ginnaaw bañ ko waxee ni ko sax am na nag ña ca faatu mu ni metti lu na ko bu baax a baax te xamul sax nag ci ban réew la ñu nekk ndax lii de dem moom kenn xalaatu ko woon kenn yaakaaru ko ci ñoo xam ne dañ lay foqati di la jaay doole kon état wu Sénégal war naa xool bu baax a baax ndax suñu ndaw ñi suñu doom yi ñu ngi nag souffrir bu baax